monsieur Dioum Cheikh Bamba ah. ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi fay. nga jiite GIE yoonu Makka ah, bokk tamit ci ah. regroupement national opérateur privé euh, ñi yu jëm ci li nga xam ne mooy âge bi euh, tey Arabie Saoudite jël dogal euh, mu doon ñaareelu at gi nga xam ne nemmeeku nañ ci àdduna wérngal képp ne kenn du jóge ci biti dugg Arabie Saoudite dem aji ji Makka li ni nag nan ngeen ko accueillir. waaw euh, dañuy nangu d'abord ne dogalu yàlla. xam nga jullit moom. soo dee wax na yow jullit nga rek. lu mu métti métti lu mu métti métti bu dogal bu dikkee rek yow da ngay nangu ne dogal am na. te mm-hmm. eh, delloo lépp si yàlla kon ñun nangu nañ ko. léegi nag yàlla dafa wax ne dogal dafay am. mi nit yi dafay am responsabilité. ah am na na loolu nag njàngat la si njàng nan la ñuy jàngatee loolu mooy lii am ni lu metti la si voyage si privé yi wax dëgg yàlla lu metti la si u ujjaat ji nga xam ne amoon yaakaar pour dem Makka amoon ko daaw demuñu ñu am ko ren demuñu di metti ci ujjaat ji nga xam ne mooy pèlerin yi nga xam ne fi mu ne nii ñu ci bëri ci ñoom xëy na am nañu euh, jàll nañu juróom benn fukki at jëm juróom-ñaar fukki at wala sax ñu weesu juróom-ñaar fukki at doon yaakaar dem màkk seen jabool dajale lépp léegi ñu wax leen ne feebar am na wala xaw ma nun ko justifié ba du ngeen dem ñoom ñi ngi naan ndax daañu sax demati kon loolu lu jafe-jafe la lu lu lu lu metti la mm. kon njàngat bi daal mooy lii xew nii bett na na bett nanu waaye nag métti na tam wax dëgg yàlla conséquences yi métti na lool mm-hmm. décision bi ñu jël ko gannaaw nag bañ fa amalee umra euh, bu yàggul ñu bëggoon a xam lan moo soppeeku ci diggante bi ba mu waral euh, bi lépp dogal. waa xam nga umra effectivement ni nga ko waxee umra am na. Mhm. te umra bi dafa meloon ni test la woon bu doon def pour waajal ak. Mhm. te umra bi arabu saoudite daf ko réussir. Sénégalais yu bëri jóge nañu fii ay sénégalais en tout cas jóge nañu fi mhm. voyage privé yóbbu ay. ay ay ay nit yu demoon di umra. Mhm. mais Arabie Saoudite bi ñu paree ñoom umra bi li conclusion yi ñu tiré mooy ci at mi yëpp recevoir nañu vingt millions yoo euh, si ay nit ñaar fukki millions ci ay nit yu nga xam ne def nañu umra. Mhm. te weeru Ramadan wii génn rek ëpp na un million de personnes ëpp na ko ah yoo xamante ne ni ñëw nañu def euh, umra si weeru Ramadan mhm. xam nga kon nag loolu ñun jàppoon nañ ne indication la woon. ah junj la woon. buy wane ne ah kon de ginnaaw euh, umra bi benn weeru ramadan bi rek un million yu teg yu teg la kon lu toll noonu gën gaa néew war na mën a ñëw si aj bi mm-hmm. waaw moo tax nag umra bi wax dëgg yàlla daf ñoo yokkoon espoir mais malheureusement nag bi décision finale bi génnee ñu ne ñoom dañuy yemale ak gi seen biir rek ñun bett nañu ndax li gën tax mu gën noo bett sax mooy ñoom dañu xamaloon ne ajug ren du demee comme daaw bi ñu yemale woon foofu et étranger yi ñun ñooy étranger yi ah daañu bokk donc ñëpp pays yëpp nga ko doon waajal mhm. vraiment pays ko doon waajal léegi nag bu ñëw ba ci ba mu des weer ñu ne ñu amatul mhm. wax dëgg yàlla métti na bett nañu te surtout que comme ni nga ko waxee umra bi moom dafa wane woon ne aj war na mën a am ngeen nekkoon ci waajal gi ñu bëggoon a xam jamono ji euh, lan mooy njeexital euh, bi lépp dogal euh, ci yéen seen liggéey di voyagistes privés yi. waaw xam nga bu fekkente ne dañu ko annulé at mu njëkk ma. Mm-hmm. liggéeyoo nga nekk chômage muy année blanche. Mm-hmm. mu metti lool la nga waroon defal sa bopp defoo ko. ah si si prise en charge liggéey ba nga waroon def yëpp liggéeyoo ko. ñu daal koy indiwaat ren. te comme nu mu ko waxee woon tamit nga xam ne yow képp koo xamante ne yaa ngi liggéey si aji màkk gi bañ la waxee arrêté arrêté nga waaye avant loolu am na ay charge yoo fay fii wala yoo fay fale kon nga jàpp ne bu ñu nee taxawal nañu aji màkk gi mm-hmm. kooku moom dafay mel ni yow sa activité yépp dañ ko nërmeelal bàyyi la ak sa bopp ba pare nag financièrement yow lépp loo waroon lu amoon charge parce que charge yaa taxaw ba léegi. Mm-hmm. waaw charge ndax ñun tey société nga yore di ko gérer dangaa war a fay ay impôt mhm. fii lay waxee yow nii man impôt woo nañ ma semaine passée li ma fayee ko impôt ah mhm. xoola ba loolu ku liggéeyul un an deuxième année ñu ñëwaat na la euh, doo liggéeyaat mais impôt moom xamul loolu <laughs> état la kon pour wax la ne euh, euh, bu ñu annulé at rek wax dëgg yàlla métti na ba fa métti yook buñ ko waxee ak buñ ko waxoon metti na si ujaaj gi nga xamante ne ni am na seen yaakaar tas na. Mhm. waaye métti na si ñun ñi nga xamante ne dañ doon liggéey ñaari at ñu toog liggéey. ci wàccaay gi sax euh, yéen du ngeen toog ba mu ne këtt ne jot na ngeen ne euh, nañ leen yëkkati bagage yi dem du ñàkk di ngeen am nu ngeen jëf jëflanteel ak euh, ñi di seen ujaaj yi ak it fa ngeen jëm fan ngeen leen di dalal jamono ji fu ngeen toll ci loolu gannaaw bi lépp dogal. waa xam nga avant dogal bi sax ngay wax. Ah, Euh, deux mille dix neuf ñun bu ñu jógee màkk. Mhm. su fu ñu jógee màkk rek ba noppalu ko weer rek. Mhm. dañuy tàmbaliwaat liggéey bi parce que amul ñi bëgg a demaat màkk dañuy commencé di inscrire di bindu. Mhm. boo ci tegaatee weer à partir mois de novembre décembre nit ñi dañuy commencé demaat màkk di ut ay hôtel parce que lépp ñu Sénégal sax si ñuy yéex a dem la a bokk ah, am na si ñoo xam ne sax si at ji yeneen pays yi bu ñu accee la ñuy toppatoo seeni hôtel pour année troisième mois ñu soog a commencé dem. loolu en deux mille dix neuf deux mille vingt bi. Mm. ñun tàmbale woon nañ ko. bëri woon na si ñun ñoo xam ne dem nañu signé ay contrat yóbbu fa avance yóbbu fa xaalis boo yóbboo xaalis nag fay ko foofu lu bokk la xaalis bi ngay fay fii say taxe naturellement. Mm-hmm. léegi nag ñu xëy xëy ba mois de mars na la arrêté leen taxaw leen léegi nag yow xaalis boobu dafay tag. Mm-hmm. dafay tag mu mel ku ku ku ji ba pare ñu ne léegi yow jéeg a demee nawet bi taxaw na amul. ndox am mais xam nga kook bu ñu taxawee ne la yow euh, nawet amatul sax ñu lay fayakuwaat leneen ah mais dafay metti loolooy li dal u jaaj léegi nag comme ni nga ko waxee nii. 2020 hmm. bi ñu duggee lañ demoon ji màkk si ñenn si ñun fay fa ay bëri si ay hôtel ak bàyyi fa xaalis. Hmm. ñu ne la dellool pèlerin bi xaalisam wala boog bul jëlati ba mais bay état président de la république ne bu leen jëlati ñu jëlatuñu loolu c'était au mois de mars. Mm-hmm. parce que à partir de ce moment doo jëlati man de en tout cas personnellement ku ma woo ba président wootee. dama lay wax na la ñu ngi déglu loolu 2020 la de. Mm-hmm. mais dinaa bind sa tur nag. Mm-hmm. dinaa bind sa tur nag te pratiquement euh, l'essentiel ñu ëpp doole ñu ëpp ci kii yëpp noonu lañ def dañoo déglu loolu. léegi nag boo fekkante ne am na si ñoo xam ne ba tey seen xaalis a nga fort. te xaalis boobu ñaari façon moo dem Arabie Saoudite li ci liggéey. Hmm. ñu ne la arrêté ba yàqu yow nga des ak nga ba. beneen bi bu fekkente ne yow amoon nga xaalis bi nga xamante ne nii yow avance na la. Hmm. ci ngay jël avance parce que liggéey bi noonu lay demee. heureusement sax affaire bi xawoon na teel mais aviation yi noonu lay demee bu pèlerins yi di fay. avion yi dañ lay taxaw yow da ngay jël nga dem fay avion yi. Hmm. mais tey bu fekkoon ne tey suñu contrat aviation commencé woon parent yow mën nga signal maa yóbbu say say ujaaj nga ne waaw six mois avant mën la euh, dugalal vingt cinq mille vingt cinq pour cent ci xaalis bi pour tous les pèlerins mais loolu dafa metti li jëm ci hôtel yi li jëm ci avion yi dara du am remboursement. waaw xam nga aviation bi sax mooy li ma la wax nii bon xam nekk dawuma si ñëpp daal. Ah. Mm. parce que privé la ku si nekk yaay géré. mais jàpp naa ne ñi ëppoon euh, xëy na jotaguñoo dugal ci aviation. bon donte am na si ñi nga xamante ne ni ñoom wax dëgg yàlla ñoom dañuy teel a commencé seen seen seen opération. ci delloo googu xam nga ujaaj yi dina am tamit ñu leen taxawoo noonu comme ni ngeen di taxawoo. ñi ngi mooy li ma la ngeen leen ko. ah oui oui mais di. mais koo delloowul yow c'est à tes risques bu la delloo ma mais moom moom yoonam new ci ah, moom xamul woon ne sax yow noonu ngay liggéeyee yow yaay liggéeyee noonu yaay soit nga ne damay dem banque. Hmm. ah soit nga ne non naa xaar ba ba ba nga xamante ne nii Adja ngi soo a ñëw mu ut kër am na ñuy def loolu de. Hmm. mais bu boobaa yow doo mun a am hôtel da ngay fekk ne pays yi la jiitu ay Afrique euh, euh, Nigéria Canada Guinée liggéey nañu hôtel yëpp doo mën a am lu baax. man dama ne. comme hmm. man mii bëgg a ji. Hmm. xam nga jox naa la sama xaalis ba pare. man xooluma yow nan ngay liggéeye voilà loolu mais tey jii bu ma ñëwoon ne la sama xaalis. dama la koy jox. voilà léegi am na am ngeen possibilité tamit ma ne la bàyyi ko fa comme yéen ni ngeen def ak seen i euh, agence ak yooyu yi ngeen di liggéeyal. loolu laa a nekk. Mhm. ñaar yëpp li ci ëpp nag da nga leen da nga leen di remboursé. mais dina am koo xam ne sax da ngay dem di ko remboursé. Mhm. moom mu ne la boo ko joxee comme ne nga aj dëwal la man aj moo taxoon mu ut xaalis bi. Mhm. soo ma ko joxee man dama koy lekk. ah. du du ma ko jël comprendre nga. Mm-hmm. mu nekk sa sa mbokk mu la jege parce que man xam naa ne cas yooyu am na. dëgg mm-hmm. man gis naa koo xam ne sax. dafa remboursé ñëpp. génn xaalisam dem remboursé kenn kooku ne ko du ko jël bu ko jëlee dama koy lekk mu ne ko remboursé naa la xam nga kooku nu def. dafa jëlaat xaalis bi xam na numéro compte bi dem versé waat ko fa. est est une ki la wóolu yow la wóolu. Mm. xam na ne doo lekk dërëmam doo triant xam na te moom it li mu dajale pendant des pour dem ci màkk boo ko delloo mu ne mu mu seey du ko nungu mais confiance mooy nit ñi remboursé nañu képp koo xamante ne nii loolu xëy na ay benn benn lay nekk ah te remboursé wuloo ko da koo neex xëy na nag mu am ci nag boo xamante ne nii am na xam nga sànq ñun dégg nañu fan yee passé sax mm. ñuy wax ci rajo yi naan bu jël bu kenn jël xaalisu kenn kooku moom wax ju yàqu la parce que loolu jaru ko loolu xëy bu ñu ne woon sax ci début deux vingt ñu wax ko mm-hmm. mais ñëpp xam nañ ne fii kenn benn kenn taxawul temps bi ñu période bi naan da ngay jël euh, pl fooy jëlee yow paquet bi sax mënoo koo fixé ah li ci am kay mooy li amoon démb avant ñu agsi fii xaw ma ndax comprendre nga li la wax euh, ci yàqule mën nañoo am benn euh, chiffre ci xayma maanaam yan perte ngeen am deux mille vingt ak deux mille vingt et un. bon perte yi moom wax dëgg yàlla bari na xam nga boo jëlee moyenne bi laa wax ah xam nga ñëpp yemuñu paquet yi maanaam li ñu fayako ah ñu ngi def 3 millions 200 ñi def 3 millions 500 am na ñoo xamante ni les VIP ñu ci 6 millions 7 millions 8 millions. wala plus. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dama ne la boo defee moyen ah. di nga jàpp ne liy tourné ci xaalis ci chiffre d'affaires ci at gi bu taxawee. 38 mhm. millions 38 milliards la jël kaw. 38 mhm. milliards jëm kaw. Mhm. léegi nag loolu nag la cay la cay rot delluwaat ci nit ñi mën nga jàpp ne 2 milliards ba 3 milliards comprendre mais loolu bu fekkente nii loolu mooy mooy la ca doon ruusee. ci ci globalement nga xam ne xëy na dina ci am 2 millions kee am ci 1 million kee am ca lam cay am selon parce que a Euh, euh, matul sax euh, fanweer ñi ñi seen quota ëpp na cent deux cent lépp am na fi xam nga kon nit ñi tolluwuñu ay chiffre d'affaires mhm. mais daal lu ma la mën a wax mooy li fi yàqu li fi doon duusee tey bu fekkante ne waroon na mën am lu rot si nit ñi ñu dundee ko fajee ko seen soxla fay ci seen location fay ci seen i pèlerin fay ci seen personnel mhm. fay ci seen taxe fay ci lépp mhm. si deux milliards la doon topp la doon toll exemple globalement loolu jàppal ne ruus na kon loolu perte la ci année bi. ñi année daaw rek mu nar a amaat ren xam kon loolu métti na. te charge yi du la wàcc nag ndax maa ngi lay wax ne la man mi di wax ak yow seen paase rek impôt woon nañ ma di ma fayoo ko maag samay morom. <laughs> tey jii lan ngeen di xaar ci état. waaw ñun nag dañoo jàpp ne lii nii def xam nga état nag <laughs> ñun ñëpp xam nañ loolu dara ump ko lu fi xew état xam na parce que njabootam la ñu mhm. léegi nag kon ñun dañoo jàpp ne état xam na mititu société bu toog un an liggéeyut ñu ne ko da ngay toogaat deuxième deuxième année au chômage kon ñun dañoo jàpp ne état di dañoo taxaw xool ci loolu mhm. do doonte lii am ni parce que état bu ma la waxee ne impôt yu état moo ñu fayeeku tey état waroon na taxaw ne yéen état yéen privé yi bu leen fayee ci dara loolu dafa doon jaadu parce que xam na suñu situation fu ñu mhm. Mm-hmm. war nañ taxaw nañu ah waa impôt domaine kat mu ñëw leen voyage si privé yi ñun séntu nañu loolu ci état hmm? bala ñuy demit dañuy laaj ay garantie laaj ñu lul jeex année prochaine mais dañoo séntu ne état dina ne bi yoon de garantie bi ma leen doon laaj ngeen di ma ko jox bàyyi leen ko tuuti si ma la doon laaj di ko exiger ah bàyyi leen ko parce que loolu lépp ay frais yu dul jeex mm-hmm. mais nag loolu lu néew la dañoo jàpp ne état war nañu mën a jàppale comme bi covid bi duggee ñi nga xamante ne nii deux mois lañ toog liggéeyuñu wala trois mois wala quatre mois mu jël ay milliards versé leen ko xam nga mm-hmm. mais ñun toog ñaari at nag kon ñun ñoo gën a mérité. du ma wax bokk woon ci ñi doon jàppale atum taal. non euh, ci ay koppar. waaw xam nga ñun. Mm. dama lay expliquer. Mm-hmm. ñun état ñoom dafa ñoo jàppale ci ci ci fin bi. mais jàppale bi maasewut ci voyages bi yëpp. maanaam. voilà maase wut ndax état ñun tey bu ñuy laaj ku ñu jàppale ñuy demander trois milliards ba quatre milliards mm. pour ñu jàppalee ñu ko mm-hmm. ci ci ndimbal ah comme wax naa la ne la ñun suñuy perte toll na ci diggante boobu mm-hmm. voilà tey ñun lu mel noonu bu ñu ko jàppalee ñu xam ne parce que Arabie moom noonu la def ak ay hôtel am yi chômé de da leen a jàppale hôtel yi ñu doon liggéeyanteel ah ñoom xam na a jox xaalis ñu si doon liggéey si at gi da leen a jox xaalis de parce seen doom la mais ñun tamit loolu séntu woon nañ ko ci ci ci bi bu jàppale ñu ndax léegi nag li nga ne ndax jàppale woon nañu loolu laa la doon bëgg a leeral mëna mm-hmm. la ñun bi affaire bi amee ñu toog ñu gis ne Jakarta man yi sax fay nañ leen ah <laughs> jàppale na leen te Jakarta man yi da leen war a jox si sa Sénégalais la ñu bokk waaw mais ñooñu ay trois quatre mois lañ toog chômage ah ñu toog un an deux ans état jàppale na corporation yu bëree bëri mais ñun bi ñu bindee suñu ministre des affaires étrangères daf ñu xamoon euh, na les étrangers les sénégalais de la diaspora ñooñu jàppale woon nañ leen ah xaw sax dañ leen jàppale na mu toll wax dëgg yàlla xaw ma na xaw ma mais ñun foofu lañ bokk dañ ci mais budgétise wuñ dañuy wax dem leen ci ministre tourisme bañ fa njëkkee dem ñun dañu xamal ne <laughs> bokk leen ci li ñu prévoir te wax na dëgg nag moom ñi nekk ci hôtel yeeg léegi bi ñu dellu see ñun président de la république lañu bi ñu ko bindee mu xam ne ñii li ñu wax dëgg la mais boobu ci fin bi la ah mu mu delloo suñu lettre boobu ci ministre du tourisme mu recevoir ñu mais bu ñuy ñëw fekk nañu moom la mu war a joxe joxe na ko ba pare mm-hmm. mais wax dëgg yàlla mun nañu may leen ma tuuti bi ko mayee tuuti mu def geste daf ñu njëkk jox je pense cent cent soixante dix millions quelque chose comme ça ou cent vingt cinq millions sax boo ko yu manqué tuuti mais Renofis moo demandé woon loolu nag mm. mooy organisation bi ma bokk ñoo ko demandé woon mm-hmm. et nous faisons environ deux cent quarante agences deux cent quarante cinq bu ñu joxee loolu mais ku nekk lu muy am <laughs> c'est epsilon mais mais moo tax ma ne la xeebuñu ko parce que joxewuñ ñu ko suñu ministère fañ ne ko waroon joxe joxewuñu ñu ñu ko tamit na mu waroon toll ndax ca fin ba lañ ñu soog a tontu. Mhm. jox ñu loolu mais ñun dañ ciy sant yàlla mais ren moom ren jii nga xamante ne nii doublé nañu affaire bi ba pare loolu debal la. kenn ku ci nekk bañ la ko joxee. ci biir bi juste bis ba nga ko jox. Mhm. non ca la yem parce que ay bor nga koy fayee boobu tey yaa ngi dund ay bor bi di xam yow no da ngay remboursé. ay bor da ngay fay immédiatement amul kenn koo ci xamante ne ni <laughs> am na loo ci lekk loo ci lekk mënoo ci lekk dara da daal dem fay say bor dégg nga. Mm. ba pare nag c'est rembourser. mais ñun dañ leen koy sant ñoom mais en tout cas daal lii nga xamante ne deuxième fois ñu ne dañ ñuy nar encore annuler at gi Mm-hmm. ñun dañuy ñaan suñu président de la république. Mm-hmm. mu ñëw nag xam na nag lii moom métti na te ñun it nag ci peuple bi la ñu bokk. te sonn nañu te nag ñun li ñu yore c' est le pilier de l' islam. li ñu yore c' est un pilier de l' islam. ñun ay julit ñoo ñii ay jullitu Sénégal. Mm-hmm. nga xamante ne ni jullit bi moom boo ko laajee luy sa ittee. Makka ci li jiitu la bokk kooku ñun li dox dafay loo xamante ne nii lu priorité la kon bu fekkente ne nag ñoo ñooñu doon ko dox di encadrer pèlerin di leen jàppale pendant un an deux ans liggéeyuñu mhm. am nañ yaakaar ne président bu dee jàppale ñeneen nag jot na mu jàppale ñun loolu moom moom moo mooy mooy dégg d'accord Cheikh Bamba Dioum ñu lay jaajëfal bu baax a baax